ñëw xas yàlla ci lu dul xam-xam te fekk loolu jaaduwul loolu moo tax kon respecté wante dafa war a am bi mu sàmmee diine noonu da nga xam ne fitna diine du jóg ci diggante doomu aadama yi loolu bëte nga xam ne lii mooy bakkan indi luwaa boo xam ne bi moom la ñu tuddee xisaas alquran wax ne loolu xew na ci yonent yàlla aadama ñaari doomam ya xaabil ak aabil bañ fitna reente loolu xewee yàlla ni ajli daalika katabna إسرائيل أن من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل فسادا في الأرض فكأنما قتل di waral seen diine bani Israel ne ku rey bakkan boo joteelul dara yaa ngi mel ni ku rey bakkan yëpp dalee ci aadama mi so cosaani bakkan yi ba ci kii mujj a bind bu fekkee ni sooy nga benn bakkan yaa ngi mel ni sooy nga bakkan yëpp kon sooy bakkan am na moo tax na yàlla bu rëy boobule bañ di tasaaroo ci suñ biir muy dund waa wax neen loolu mooy xisaas ku rëy te tey ko dañ laa war a rëy koo xam ne kii nag rëy ga teyuloo ko bu boobaa rëy bi mënta dal ci sa kaw ndax bu boobaa man ngaa fay diya man nañu jéggale itam yooyu man naa am waaye ki nga xam ne seet ni rey bi mu rey xam ne moo ko tey moo ko jublu kooku li ci yàlla wax mooy dañ ko war a rey fekkee loolu am na nag ñu war a bàyyi xel ci loi bu yàlla tëral mu ne loolu daf ko def pour ñëpp mucc mu wal yaa lazina amanu kutiba alaykumul qisaasu kama kutiba عليكم القصاص في القتلى الغر بالغر والعبد بالعبد والانثى بالانثى ومن اوفي له من اقيل فاتباع بالمعروف واداء باحسان تخفيف من ربكم ورحمه فمن عدا فمن اهتدى بعد ذلك فله عذاب عليم صلى الله عليه سبحانه وتعالى يالا مو ماك من يين كيتو يالا محمد yéen itam de waral nañ ci yéen li ñuy wax xisaas mooy ku rey tey ko jubluwaayam di yàq bu boobaa nañ ko rey ndax bu boobaa jàmm man a am nit ñi mën a seef dund waaye danañ gëstu ba xam la rey gi moo tey wala teyu su ko teyu yoon du ko rey liñ koy def mooy dañ koy war a fay diya mu jot ki nga xam ne kii mooy bakkat bi mu rey yàlla ne bu boobaa na koo xam ne kii mbokk yi seen nañ jéggal la ne waruñu laa rey waaye bu boobaa war ngaa def diya mu ne ñay laaj àq jooju moo la joxe lañ jotoon ñëpp kii nag Abdoulaye mooy téeméeri gëléem lu toll noonu bu dee bakkante te yow ko moom nga war a def diya ko defee su ko man famille ba yëpp mbokk ga ñëw taxaw sotoo fay loola mu ne buñ demee nag dañ ne jéggal nañ ko rey gi waaye war naa fay diya jooju su boobaa nag mu ne ñu koy topp nañ ko ko topp ci toppin bu rafet waaye moom mi fayit nga fexe ba fay ko matal ko ci anam loo xam ne bu rafet la loolu mooy li nga xam ne mooy sariab yàlla mu ne wala kum fil qisaas ayatun yaa ulil albaab la'allakum tattaqoon mu ne lii xamatalal ko mooy pour seet seen bakkan ngeen mën a dund te bañ ku bugg a nii ku am yërmaande ci ay keneen it ci sa bopp bugguloo ku la rey loolu moo tax yàlla te la loolu pour sàmm bakkan islam dellu ñëwati tëral beneen loi pour sàmm alal yi ndax alal mooy tax lu ñu mën a am alal mooy tax ñu mën a génnee asaka alal mooy tax projet si mën a dox ñi nga xam ne ñu ngay def eh, di liggéey loolu yëpp alal amul du mën a am loolu moo tax alal ñu war koo sàmm yàlla tëral ca ne wa saariqu wa saariqatu faqtoo aydiyahumaa jazaa'an bimaa kasabaa nakaalan min Allah wa jazaa'an bimaa kasabaa ñi nga xam ne ñii dañuy sàcc moo xam góor la wala jigéen lañ sàcc ba ma tee di saab war nañoo dog loxo ba mu ne lool nag yàlla mooy xuppe pour ñu moytu saab ndax alal boo ko yàqee yàq nga dund yàq nga asaka yàq nga lépp loo xam ne lu ñuy jëriñoo la moo tax kon sàcc nekk loo xam ne li ci alquran wax mooy dog loxo borom fekkee jàpp nañ ko gannaaw loolu itam ñu del sariya bi dellu aarati li nga xam ne lii mooy dereti jàmbur yi ndax rey nit deret dañ ko war a sàmm sallallahu salaam wax ne nag jullit léppam araam na ci moromam jullitam mu def ca lu ca war a def mooy diineem mooy deram mooy alalam mooy njabootam yooyu yëpp islam dafa ñëw te loolu sariya mu protéger yooyu yëpp nit ñi bokk dund ci jàmm daf di am jàmm loo tax par yàlla mi bind nit ñi luwaa bu mu tëral luwaa boobu le lu ñu war a respecté la lu ñu war a sàmm la sariya <coughs> tegul kenn dara pour soxor waaye li mu teg mooy pour séef ñëpp ñu mën a dund dund boo xam ne dund ab jàmm la yooyu daal mooy luwaa bi xam ne yàlla tëral na ko nekka noonu itam xas jullit kenn waru koo def yeneen di wax na ne sabul sababul muslimi mu ne loolu nekk na fusuuqun wa qitaaloo mu ne xas jullit fusuux la mooy jikkoy naafeq jikkoy génn ci islaam képp kuy xaste génn nga si jikkoy islaam nekka noonu itam mu ne xeex ak jullit loolu moom ak sotoo ko loolu nekk na loo xam ne lii weddi yàlla la ne ku koy def rek yaa ngi ci weddi yàlla yàlla li nga ko bañee ñu teraanga bi ko yàlla defal ba tax nga di ko xeex loolu du tax yàlla dindi ko ci moom kon nag a gëm yàlla xam ne yàlla mooy maye soo soxlaa ñaan yàlla effort bi nit pour am nga jéem a def effort boobule lam am yàlla ma nga la ko may mbaa mu may la ko kon islam da tey protège na alal yi protège na bakkan yi protège na itam der yi kenn waa taqas kulli loolu lu bon a bon la waa ne la sawaalu dunya awanu indallaahi sallallahu taala ala sax mu ne awanu indallaahi min damin moominin mu ne addina bii tukkal ko mu jeex di faat lépp moo gën a oyof ci yàlla pour benn bakkan ñu deful dara ñu daal di tuur bakkanam mbaa ñu loolu nekk na loo xam ne lu ñu war a déglu la moom lu jar a bàyyi xel la way bee moo tax islaam nekk diine boo xam ne sàgganeewul dara mu ne nag law anna ahla samaai wa ahla al ardi istaraku ala damin muminin mu ne bu boobaa la tabaxal la tabaxamu laaw fi naar la kabbamu laaw fi naar mu fekkoon ne ñooñu asamaan ñooñu suuf yëpp ànd nañu ci lor bakkan boo xam ne deful dara jotew ko ñoom dara ñoo la mu ne yàlla dana leen boole ñoom ñëpp këpp leen ci safara dëpp leen ca te du leen faale ngir faalaay bakkan loolu moo tax kon luwaa xam ne dana sàmm bakkan yi kenn ku ne mën a am sa aafiya am sa jot ci sa bopp ci sa diine ci sa alal ci sa njaboot yooyu le moo tax luwaa jóg waaye luwaa dul pour soxor kon nag ñëpp a war a respecté li nga xam ne mooy luwaa li yàlla atte ñu xam ko góorgóorlu si wax na ni man maata doona maalihi wa huwa sahidun wa man maata doona diinihi wa wa man maata doona ñu ne koo xam ne kii nit ki war naa taxaw def self defense ci ay boppam ci bakkanam ci njabootam ci alala ñu ne koo xam ne kii da def self defense ci sa bakkan yàlla dem nga des ca booba yaa ngi mel ni ku sëy ku doon jiyaar ba dee ci jiyaar ja loolu nga mel ndax daf la war nga def difen sa bopp gannaaw loolu itam mu ne koo xam ne kii def nga seet difen sa njaboot aar leen lu la ca mën a fekk si sa bakkan desee